dikkati naa kuy candidat sa loxo sa kaw tribune yéen kaay naan man fi mu ne day test bu njëkk gi cuuc xool ndax yaakaar mën na amam déet ni ki tey lay tàmbali ci réew mi tirage au sort boo xam ni conseil constitutionnel moo koy daal di def ngir xam nag ban candidat la ñuy njëkk lañ bët ay dossier daal di natt ay parrainage ak ñoom seen yéen kaay des média bi naan man en tout cas étape bi bu am solo la ñaabar ñaabar jëm ci parrainage yi waaye nag lépp risque la te ragal du ko def ci boppam ñi nga xam ne ñoom la ñu duppee ay ci gën a ñàkk wala ndax ñoom dañoo daal di raatale daal jël parrainage yi ba maar day taali nee ñu nag ngir naj ña nga xam ne dañ leen dippee ñu ndaw sutuut te sutuut soosee bu njëkkee jàll dana metti ci grand yi wala ndax ki ñu njëkku xoolal moom ku ca topp nuróoleeg moom daanaka doublon lan lay woowe moo tax attention ci grand yi attention tribune yéen a kaay xamle ko l'enquête quotidien daal di may xamal ne en tout cas yi bari na ba maar day taali juróom ñeen fukk juróom ci ay candidat ci benn réew su ndaw sii di Sénégal ñoom ñëpp di dagat jël askan wi bari na yéen kaay bi naan man bu nekkee ñenn ñi moom ambition la bëgg yor Sénégal defar Sénégal soppi doxalinu Sénégal ña ca des moom bësa leen ca dugal manees na ko expliquer ni ki Benno Bokk Yaakaar na mu xare yeewi askan wi sàllar ñi ko fële wàllu Sénégal daal di tas tasar yéen kaay bi duñu xamal ni ñu yees ñi nga xam ne dugg nañ ci langu politique gi waaye tam ña nga xam ne seen bidéew daal ci présidentiel bii la nar a jaaree fenk attention am na ñoo xam ne boo moytuwul daañu ko jàppee ak business am na ci candidat yoo xam ne yéen kaay bi naan man fañ dëkk ci boppam xamuñu leen yor yor mel ni ku naan kon la dal ñooñee dalul Bougane Gueye Dany candidat ci élection présidentielle la Sénégal xam ko ñaar fukk ak ñeent ci ay poñ yoo xam ne moo tënk programme économique bi nga xam ne moo nar a joyanti réewum Sénégal mi ngi yéen kaayub Serigne Saliou Gueye bi xëy jox kàddu Bougane Gueye Dany mu naan ñun ñooy génération bi nga xam ne ñoo nar a foqar ci Sénégal ci loxo yoo xam ne setul tegaat ko ci loxo yoo xam ne moo wóor moo gën loxo yoo xam ne ñoo ñoo mën a yor loxo yoo xam ne ma ni la daanu jaagar jaagaree Sénégal yóbbu ko fa gën loxo yoo xam ne at yee di ñëw dana neex ci sénégalais yi wala dana dàq yi nga xam ne ñoo weesu woon lépp luy naqar am ci réew mi at wii ñu dëgmal dana ko faase ngeen nar ko teg ci loxo yoo xam ne suñuy loxo jox ñu ay responsabilité yoo xam ne fas na nañu yéene tabaxal Sénégal ëllëg goo xam ne pour ñun la gën ndax fii la ñuy dund ñu nag suñu njaboot waaye tam tabax Sénégal goo xam ne suñuy sëtëki sëtaat daañu xam ne am na ñu yor ñu waroo ak programme tekki dey bu ngeen ko yëree ñaar fukk ak ñeenti poñ yi daa ngeen xam ni pom du neew te daa ngeen xam ni joyanti Sénégal daanaka jafewul volonté la ak bëgg-bëgg waaye tam sam réew daal di lay jaral ba maar day taal yi le quotidien le quotidien daal di ne ma en tout cas Sénégal mitti na yokk nga xam ne yokku nañ ko njëkk yi ci biir ménage yi tax na lu toll ci ñetti téeméer fukk ak ñeenti junni ci ay doomu aadama yi fii ci réew mi ñi ngi soxla nag ñu jébbal leen lees dundee daar daar ndax fi mu ne ñàkkub dund mi ngi leen di tongal yoor yoor naan dem leen seeti bugaan Gueye Dany ma nga naan joyanti Sénégal force la yéen daal teg leen réew mi suñu loxo rek maître Sidiki Kaba ci turbine yéen kaay di dalal xelu acteurs yi naan leen présidentiel bi day seen xel mën na caa moom ma ngay waat naan présidentiel bi jaar yoon rek l'observateur naan man en tout bu président Macky Sall bi Ba mi sénégalais yi la ñu bañee bi ba weñ la xool defu ko loolee la ñu nar a najee Amadou Ba ba mu yem dem ci premier tour deuxième ko dana bett sénégalais yi wala tribune yéen a kaay naan man en tout cas ay ñoñam moom ña ngay xeexoo moom maire bii di Kalidou Wage moom la nu attaqué ca bokki jawbe te loolee nag ña ngi ko jiiñ Farba Ngom amoon na ca meeting Benno Bokk Yaakaar ba nga xam ne moo am ca orke jéere Samba Sow naan fi mu ne président Macky Sall nag moo war a wax ak Farba Ngom ndax APR booloo la tal talul benn xàjjalikoo ak i dal ci kaw ay militant te xam nga maire bii liñ ko def mitti na dal gin dal ci kawam mitti na ñuy a waxtu woo xam ne fi mu ne président Macky sal boolo la laajte doon benn la laajte ngir am ndam bés bi le jour naan man ci 31 décembre bii day moom Sall dana tàggoo tàggoo ak sénégalais yi niki ni ko Senghor defee woon 31 décembre 1980 Abdou Diouf mosu ko def maître Abdoulaye Wade mosu ko def Sall ngaari lam tooro buur gëda yàlla may na ko chance su mën a tàggoo ak sénégalais yi le témoin yéene kaay naan man Karim Meïssa Wade booba ma ngay taxawal ay comité électoraux waaye Anta Babacar Ngom it ma nga ca biir Sénégal ci ruq-ruqaat yi moom njiital arc xamle ni jooyanti napp gi mbay mi waaye tam càmm gi bokk na ci ay yitteem daar daar fii ci réewum Sénégal boobu Sénégal dund na métit yoo xam ne 2023 métti na wala Sud Quotidien daal di may xamal ne diggante politique boo xam ne daal dina yëngu yoon daal di koy bëtër ñi manifestation yoo xam ne am na juin ba ay bakkan daal di cay rot am nay liberté yoo xam ne daal di nañ koy caxat caxatee daal di ñoddi daal di tëral daal di faat wàllug loo lambe ku mën sa morom duma daal di am ci 2023 bi tribune yéen kaay naan ko ndorteelu 2024 nar a métti boulanger yi fas yéene soobu ci gréew goo xam ne maar day taali ñu fas yéene tàmbali banque seen loxo duñu lakk mburu ndorteelu 2024 bi vox populi di ma xamal ne évêque yi nekk fii ci réewum Sénégal xam le nan ni la ñu dogal ci ne mën nañoo takk sayu ñaari góor wala ñaari jigéen lànk nañ ko xalaatuñu koo def ci mim réew booba barñee ngay sargal seen directeur yi gën a ràññeeku njiital compagnie de l'électricité bu Sénégal Malick Seck waa barñi def ko meilleur directeur daal di koy sargal turbine yéen kaay naan man commune bu jawle yi Babou Diouf sargal ay ndawam njiital jawle dëbbu amal fa ay activité sportive yoo xam ne maar day taali bés bi nan man tey ji Aliou Cissé dina xam le moom it yan gaynde lay àndal ci kan bi l'observateur nan man daanelal ak man ma xamal la ni accident ba nga xam ni amoon na ca Sikilo ñeen fukki bakkan lañu tollu woon waaye faatu gi dem na ba ca juróom-ñaar fukk fi mu ne ña nga xam ne ñoo ca rëcc ñi ngi dund daanaka jaxan na ma ci réew mi ab groupe whatsapp lan mujj daal di ubbi di ci waxante naqar ak métit yoo xam ne ñi ngi koy dund amuñu genn ak assistance ak lu mën a am mbokk yi ñuy ñaan jàmm te yendoog jàmm